min akaabiri taabiina tey li ñuy jàng mooy magi taabiina yi bokk na ci magi taabiina yi nag alfuqahaawu sabaa borom xam-xam yi yeddi juróom-ñaar ñu tudd leen fuqahaawu sabaa min ahli madina ci waa madina ñoo bokkoon ci ñu gën a ràññeeku ci fuqahaaw yi rek qaala wax na abu amr bun salah ne wowum ñoom fuqahaawu sabaa kon ci magi taabiina lañ bokk saïd ibn musayib ak xaasim bun muhammad ak urwatu bun zubayr ak xaarija bun zayd ak abu salama bun abdurahman am na ñoo xam ne nii tudduñ abu salama salim bun abdullahi bun omar lañ def place abu salama am ñoo xam ne abu bakar bun abdurahman moom lañ def place abu salama kon abu salama am na ñu ko si génn dugal salim ñeneen ñi dugal abu bakar <coughs> waaye ba léegi du ko romb juróom-ñaar rek ndax place abu salama la ñeneen ñi def salim ñu ne déedéet foofu abu salama nekku fa salim nekku abu bakar fa nekk wa Ubaydullaah bun Abdullaah bun Utba ak Souleymane bun Yasaar ñii ñooy fuqaawu euh, saba kon boo ci boolee ñaar ñañ ci yokk ñu remplacer Abu Salama du nekk juróom-ñaar ñeent la ñuy doon. Hmm? Hmm? waaye nag li ko def juróom-ñaar rek ba léegi ñëpp dëppoo juróom-ñaar mooy ña compter ñëpp juróom-ñaar la ñuy compter problème bi mooy dañuy wutee ci tur yi ñuy dugal turu kii bakkale ñuy dugal turu kële bakkale. وروي لنا نتلين يعني عن حافظ أبي عبد الله الحاكم أنه نمم قال وحنا نه الفقهاء السبعة فقهاء السبعة عند أكثر شيء بري من علماء الحجاز يبرم كم كم حجاز قال وانا هؤلاء فقهاء برم كم كم السبعة يجرم ناري برم كم كم عند أكثر شيء أب من علماء الحجاز kon برم كم كم حجازي jaas yi bu ñuy wax fuqaaw saba ñii leen ci nam ñu waruwina nettal nañu an ibnu mubarak qaala wax na kaana nekkoon na fuqahaa ahli madina borom xam-xam ñooñ madina alladina ñi nga xam ne yusdaruuna danañ gongee ko andar ayim jëlee seen xalaat sabaatu juróom-ñaar ñi nga xam ne bu ñu waxee rek nit ñi jël loolu dem doxi seen soxla am nañ seen seen seen aajo faju na ci xam-xam juróom-ñaar lool fa zakara mu tudd haawlaay gaañi ibnu mubarak ñii la tudd ilaa anoo lu mooy ne moom la mees ku tudd aba salama abou salama bun abdurahman tudd ko ذكرت ابن بدر هو رام براس ابو سلمة فورن تود ابو سلمة كم فتود موي سالم بن عبد الله بن عمر كم نيكو خو <coughs> وروينا نتلنا ابي زينات تسميته متدلن في كتابي شتيرم انوم تي نيوم فذكر متدو هؤلاء غاني الا ان من ذكرت ابن ابا بكر بن عبد الرحمن بدل ابو سلمة وسالم في مرون تود ابو سلمة نخمني فلا ابو عمرو بن سلام تود ابو سلمة تود ابو سلمة, أبو سلمة. ibnu Mubaarak Salim la tudd waaye tudd ibnu Mubaarak kii kon tudd Salim moom moom Aboubacar ibnu Abdurahman la tudd bàyyi Abou Salim ak Salim kon daal ñu ne fuqaaw saba ñan ñoo gën ci taabiine yi fuqaaw saba nag ci magi taabiine yi dañ ñi gën ci taabiine muy abdalu taabiine ñi gën ci taabiine yi warada root Ahmad jëlee ci imaamu Ahmad bun Hanbal andoona moom qaala wax afdalu taabiina ñi gën ci taabiina yi mooy Saïd ibnu Musayyib moo gën ci taabiina yi bu dee ci wàllu xam-xam bu dee wàllu jaamu yàlla na Uwaysul Qarni moo ci gën moom lay wax ne moo dajeg euh, moom la yonent bi doon jot li nuyoo ci moom yonent bi waaye ne moom moo gën ci taabiina yi tamit faqiira wax ne loo ñu ne ko fa alqama topp alqama wala aswad ak aswad ahmad ibnu hanbal ba mu nekk ñi gën ci taabiina yi mooy Saïd dañ ne ko ak alqama ak aswad fa qaala mu ne saïd saïd ibnu musayib wa alqama wal aswad mu ne ñooñu ñoo gën kon ñaar ñii ci ñu gën ci taabi lañ bokk waxanu jëlee nañ ci ibnu hanbal annoo ne moom qaala wax na ba tey afdalu taabi ne ñi gën ci taabi ne mooy wa abu usman wa alqamatu wa masruq ñi ñoo gën ci taabi ne xawlaay gaa ñi kaanoo nekkoon nañ faadili leen di way gën wa min illiyati taabi ne bokkoon ci sangi taabi وقال أبو عمرو بن صلاح من فارسي 643 لو أعجبني هم ما وجدت لما فكان الشيخ أبي عبد الله بن خفيف الزاهد الشيرازي في كتاب شابتر له قال من اختلف وتنا الناس في أفضل التابعين تشكي في تابعين فأهل المدينة ومدينة يقولون لني سعيد بن مسيب مو جن تابعين وأهل الكوفة وكوفة يقولون لني ويس القرني مغنتي تابيني وعلى البصرة وبصرة يقولون لني وانا الحسن البصري من خم مغنتي تابيني كان وتنين وقال الحافظ زين الدين العراقي من فاتو في سيس تيغاداغي وصواب لنجب ما ذهب مويل دمنا إليه جمس أهل الكوفة وكوفة لما روى عن جرل نتنك الإمام مسلم في صحيح حديث بوير من حديث عمر بن الخطاب جريت حديث عمر بن الخطاب radi yàlla na gërëm allah yàlla ci moom qaala wax na ne samitu dégg naa rasulallah yonent yàlla bi salla yàlla dool xew allah yàlla alay ci moom wasalaamu dooleku mosa yaqul muy wax Omar nee na dégg na yonent bi mu ne inna xayra taabiina musliman na ko ki gën ci taabiin ne rajulun góor la goo xam ne yu qaal dañuy wax loo ñeen ko uweys kaake li jeex na moom nag ab sufiyanke la woon moo tax ma xaw ma gars yi dañuy bañ a sufiyanke ne OS duñ dundee rek loolu sufiyanke duñ dundee moom bëggoon feeñ sax ku nëbbatu loon ku ne ba mu dajeeg saxaaba yi daf leen leen gis leen si yonent yi lu ci yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam mooy kër ga ene loolu la leen waxoon moom mooy suñu kër am na ñaari fii fii bu njëkk bi nag dafay mel ni Uways daf leen bu wane yéen xamu leen dëgg-dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni Uways xam na waaye firif naa leen mooy woy sa leen bëgg wax ne man ak yéen ñëpp kenn xamul si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amut ku mën a xam dëgg-dëgg yonent bi moo xam laaxiqun aw saabiqun kuy ñëw wala ku jiitu yonent bi ñëpp kerg lañ ci xam wala yaarifu ahad xam dëgg-dëgg yonent bi yàlla rek ko def dañ cee xam dara rek loolu loolu junju alxadis wala Abubakar gaay gaa yi nee nañ moom xutbu zamaan la woon si jamonoom naka lay ñàkk bu xamee yonent bi sallallahu alayhi wasallam xutbu zamaan kay du réer yonent bi waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn xamul xaqiqatoom xaqiqatu Muhammadiya dëgg-dëgg kenn mënu koo peeg waqad yu axmad dana ngeen ma zahaba la demee ilay suma ahlu madina waa madina waa ahmad ahmad aydan ba tey min tafdil Saïd ibn Musayyib ci gën a Saïd ibn Musayyib ala saayir taabiina ci mboolem taabiina yi waa Medina jàpp gi ñu jàpp ak Ahmad ibn Hanbal jàpp gi mu jàpp ne Saïd moo gën si taabéen yi lañ jàpp mooy àndoon na ñoom araado na mu nañ fadilatal ilmi ngëneelu xam-xam laa xayr yee nekkul ngëneel alwaar de girool fi hadis si hadis bi xanaa ngëneelu xam-xam zahir waaye wooy su xar ne koo xam-xam moom hmm? xanaa ngëneelu xam-xam zahir bi nga mën a teg sa bët si liggéey ci wàllu hadis ak yu demee noonu dégg ak euh, jukkandiku ci wàllu xam-xam génne si ay masala yu bëri loolu de mën na ko may ngëneel lu waaye kee moom ngëneelu xam-xamu baatin la yoroon moom it ki ne bu ko xam-xam de wala alam yàlla rek xam kon ko defee ma nga jàpp ne taabi daal uwe su xar nii moo ci gënoon wa qaala woon alxaafis albulqiini muy faatu huit cent ci gàddaa gi ne wala axsanu la gën fii tabdili ci gëneelu taabi ne yi an moo ñu wax mais zuhdi bu dee dëddu àdduna la wala war ak sàmm woy su xarani moo ci gënoon jikkoom nag dara lu mooy jikko sufiyanke gars yi duñ ko weddi de parce que yonent tudd na ko waaye ñemeel ni ñoom moom ci jikko dañ leen weddi loolu fuñ ko teg xam ne yàlla dimbal yàlla mooy sàmm ku ko neex daa ñoo ne yàlla bëgg a dàq da leen bëgg a daf leen xiir ci kaw gaayam te yàlla boo laalee gaayam rek mu dal sa kaw woy laa sufiyanke jikko woy su xarani rek wa min xaysu xifdil xabari bu dee mokkal xadis yi wala asar ak jeexit yi Saïd ibnu Musayib moo gën ok mokkal lañ wax de wa qaala waan ibnu Salaah ne wa ballagana wa ballagana jot nañu an abi bakar bun abi daawud jëlee ci abubakar bun abu daawud qaala wax na ne sayidata taabina sangu taabina yu jigéen ñi même nisaa yi ci jigéen ñi mooy xafsatu bintu sirin ak amratu bintu abdurahman ñu ñoo gën ci jigéen ñi taabina yi wa saalisatuhuma keneen ñetteel walaysa te nekkul ka huma comme ñoom ñaar si daraja mooy umu darda ñett yi ñoo gën ci jigéen taabiin Absatu bint Sirin Amratu bint Abdurahman ak umu darda wala alama yàlla ko xam darda nag ñeeg gënoon a foor xaalawoon albulqiini al muraada kañ nam mooy umu darda as suxra gu ndaw ga a taabiin moom taabiin la ismuha turam mooy hujaymatu wa yuqaalu juhaymatu ñu ne hujayma ñu ne juhayma mooy moom <clears throat> ci taabiin yi gënoon la bokk kon jàngal na la ñenn ci sangitaabe ne alwala bu fawaayit li ay njëriñ la alwala bu njëkk bi xaala woon abu abdullah alhakim muy faatu 405 ne wa tabaxatun am na étape boo xam ne tuaddu dañ leen compté fi taabeene ci taabeene yi wala mu yeex te wérut sama ahadin dégg kenn minum ci ñoom mi ne saxaaba di saxaaba yi am na ñoo xam ne gars yi leen boole ci taabeene yi te wóorut ndax déggee nañ saxaaba yi dara moom déet wala wérut منهم بكر شنو إبراهيم بن سويد أن وين ما رواية تونك رواية أسهى غير أنا القمة تي القمة لو كجيرة الأسود تنيون كتاب يعني بوك كون جيرة وتي صحابة ولم يدرك جوتو أحد كان من الصحابة الصحابة تنيون كوي كون كتاب يعني كون لون جم ترى وليس نقول هذا كيني وح إبراهيم بن سويد لا بوكتك بإبراهيم بن يزيد أن الفقيه كم من بن خم كم فقلو إبراهيم بوكتك foofu Bukayr bun Abdullah bun Asaj kooku dañ koy compter si taabiin yi waaye déggeewul si saxaaba yi wala mu yes bu saxut sama déggam min Abdullah bun Xaaris bun bun Jazri jëleewul ci kooku mooy ne maa riwaayatu na ko nettale ma ni taabiin yi si taabiin yi waaye jëleewul si saxaaba bi wa Bukayr bun Abi Simti lam yasix wérut loo ñu ne ko Anas mu jëlee ci Anas kooku jëleewul ci Anas mi nga xam ne saxaaba la riwaayatun benn nettali bu mu jëlee ci Anas wérut mooy ne ma asqata naka rotal na xataatatu xataada min al wasat ci digg ci digg bi ci xataada lay jëlee waaye jëlee wu ci anas xataada la ñuy waxal mu mel ni dafa jëlee ci anas wa saabit bun ajlaan al ansaari kooku lam yasix wérut samaawu dégg min ibni abbas ibni abbas wayn maa yer bi naka dara euh, solo moom saabit an ata ci ata wa saïd bun euh, jubayr ak saïd bun jubayr an ibni abbas ñooñu mu jëlee ci ibni abbas kon moom ci daaw jëlee ci mukk ci ab saxaaba te dañ koy compter si saxaaba yi wa Saïd bin Abdurahman ar-Raqashi waaxu ak mbokkam waasil abu xurra ñoom ñaar ñëpp lam yes bu saxut sama waaxidin dégg kenn minu maas ñoom ñaar min anas ci anas ñoom ñaar ñëpp déggewuñ ci anas kon ñi ñenn lañ ci ñoo xam ne dañ leen compter si taabi ne te bokkuñ wa tabaqatun am na étape boo xam ne idaaduhum fañ leen compter indi naas yi fa nit ñi fi at bàyyi taabiine mooy taabii taabiine am ñoo xam ne boole wuñ leen ci taabiine yi ci taabii taabiine lañ bokk te daje nañ ak saxaaba maanaam taabiine lañ bokk kon dafa am ñoo xam ne bokkuñ ci taabiine ñu yéege leen fa am ñoo xam ne ci lañ bokk ñu génne leen fa waxat laqu te fekk daje nañ ak saxaaba te saxaaba yi am ñoo xam ne daje nañ ak saxaaba yi minum bokk na si abu zinaat abdullahi bun zakwaan waxat laqee daje nañ ak abdullahi bun omar wa anas bun malik wa aba umamata bun sahal daje nañ ñi ñëpp ñi ay saxaaba wa Hicham bun Urwa xadaar xa dugg naa la Abdullah bun Omar wa Jabir bun Abdullah dañee nag ñoom wa Moussa bun Uqba xadaar dara ko jot na Anas bun Malik Anas bun Malik wa Umu Xaalid wa Umu Xaalid jigéen bintu euh, Xaalid bun Saïd doomu Xaalid doomu Saïd bun Aas mu Xaalid moomu ak Anas Moussa bun Uqba dañee nag ñoom kon ñii ci taabiin yi lañ bokk ñu leen boole ci taabi taabiin yi asaanitu ñaareel ba xaala woon asuyuti muy faatu neuf cent onze ci gàddaay gi bon de compte nañ mu ne taabiin ci taabiin yi ab étape boobu ñoom saxaabatun saxaaba lañ am na ñoo xam ni ay saxaaba lañ sax ñu boole leen ci taabiin yi dégg imma benn xalatan njumte moo tax ñu def loolu كان نعمان اك سويد ابن مقرن المزني نعمان بن مقرن اك سويد بن مقرن المزني نيونيو دنج لين بوله كتاب ني فك صحابه لين حدهما كنت نلين الحاكم حاكم في الاخوه بمي واخ مبوكي ني خاي مبوك لين من التابعين مو كنت لين كتابين وما إيوه تنم نيا صحابي يعني نياري صحاب لين معروفان ني خم اولي كون ذلك ولا نك zalika saxaabi wala nekk boobu la saxaaba min sixaari saxaabati ci saxaaba yu ndaw yi li waral loolu nag mooy ñaareel saxaaba boobu dafay nekk ku ndaw yu xaaribu dana jege a taabine taabine fii kaw ni riwaayat yi ci nekk ak nettaleem aw xaaliba wala ci li mu nettali ani saxaaba si saxaaba yi la ko jëlee lépp ci li mu wax ci yonent bi saxaaba yaa ko nettali rek waaye moom boo xoolee ci xale yi la bokk moo tax ñu boole ko ci taabine kama adda comme nu mu compté muslim mina taabine ci mu boole leen ci taabiine yi te fekk jëlee ci saxaaba yi lañ bokk asaalisatu ñetteel ma qaala woon alxaafis albulqini bulqini mu ngi faatu huit cent cinq ci gàddaay gi faidatun ne li am njëriñ la awalu taabiine ki njëkk ci taabiine yi mootoon ci dee abu zeyd mahmar bun zeyd moo njëkk faatu ci taabiine yi qutila bi xuraasaan lañ ko reyee waqiila wax nañ bi Azrabijaan foofu lañ ko reyee sanata salaasina atam ci gàddaay gi kon ki njëkk faatu ci taabiin mooy Mahmar moom wa ko ci mujj mootam ci dee xalaf bun xalifa xalaf bun xalifa moom mujj a dee ci taabiin yi tuufiya faatu na sanata samaanina wa mia atam téeméer ak juróom-ñett ci la faatu moom mujj génn àdduna ci taabiin Rabi'a ñeenteel yett ba xaala woon alxaafis Abu Abdullah Az-Zahabi mu ngi faatu 748 ci gàddaay gi dafa fi asa zamaan si jamono ji <coughs> zamaanu axiri taabiina jamono mujj ak taabiina yi waawul asri at bàyyi ak njëlbeen ak jamono ñu topp taabiina yi ci la yàqu-yàqu yi commencé feeñ moo tax jamono taabiina yi gars yi amuñ si woon problème daawuñ jëm kenn parce que jamono saxaaba yi noonu waaye nag ba taabi taabiina yi ñëwee ci la am ay yàqkat yu dugg yu gën a fës jamono yi amoon na yàqkat mais dafa fës woon zahara feeñ na bil basra ci basra amru bun ubayd al abid jaamukatu yàlla la woon nag waaye mu'tazil la woon wa waasil bun atta al ghazal wa daaw ñu woo annaas nañu ilay intizaali ci beru wal qawl ak wax bil qadri ci mbiram dogal dàq dogal wa zahara feeñ na bi xurasaan al jahmu bun safwaan wa daaw moo te ila taatili rabbi ci yuqal borom yàlla ju amul melo melo yàlla yi lay dàq حسن الله وجهه سماك وخلق القرآن منان القرآن إنكو فين إنكو بين وظهر فين بخراسان في خراسان في قبائل تيجا كارلو جهمو مقاتل بن سليمان المفسر في كتاب القرآن بوب وبارك جسالنا في إثبات صفات سخل أيالا أيمرو حتى جسم مجرب كجم لما بلانك بقونا دفع الجم دتا أنكو تتانكك بوبوك بوبوك خوالي من دسيال نينكو بين سكرة boo xoolee ay yàqkat ak waxikat yu garaaw yàgg naa feeñ te dañ nekk ay borom yi xam-xam ci wàllu wàllu woowu dégg nga moo tax lii gën a bon ci xeet xeetu yonent bi musiba bi gën a bon ci xeetu yonent mooy borom xam-xam buñ jënd li muy yàq dafay bëri dana xam ne li ñuy wax du noonu de waaye dañ koo jënd moo tax dafay yàq ñu ku ko ñii bañ feeñee nu borom xam-xam yi def mu ne ah raddu leen rek borom xam-xam yi ñaareel tàngee ñoom ñu jub fa xaama taxaw naa laa walaay a gaañ yi ulamaaw taabiine borom xam-xamu taabiine wa aimatu salafi ak njiitu mag ña wa xadaru ñu moytuloo min bidaayim seen bidaaya wane na lañ nekk bidaaya moytu leen ko wa chara mu commencé ak kibaaru mag ñi fii tadwini sunna nii ci taalif ay sunna bind ay sunna wa taalifu furuin ak taalif ay banqaas wa tasnifu arabi ak taalif ci wàllu arab su ma kasar mu bëri zaalika taarif googu fi ayaami rachid yi si jamonoy rachid wa kasar mu bëri atasaanif taarif yi mooy taarif wutal ko buntu ba buntu wa àlla foo ñu taarif fi luxaati ci luxa wa axada mu commencé xifsul ulama yi mokkal borom xam-xam yi yan xusu di wàññeeku maanaam bañ commencé di taarif ay téere ci la mokkal commencé wàññeeku taarif ay téere di raddu taarif téere di jàngale pour affaire yi gën a leer daal wa du weneen ñu taarif ak kutubu téere yi wa takkaloo ñu sukkandiku alayha ci téere yi وإنما كان أنك نكون قبل ذلك يقولون عن مصاحبة قمق مصاحبي وتابعين قمق متابعين في صدور شدني لنكون فهي ممكن كان نكون ممدن كان نكون خضائنا المدين ما نقدر قمقم لو من لين رضي الله الله ولا نمتيهم بنجك صحابي أكتابين <clears throat> سيني قمقم تسين دن لنكون وعندما آه، آه، ما بتعرف بري أتلني نكون عزيز سكون بجتيرين لا لا صحة لأنني أبتيرين فكفا ci la mokal daal di wàññeeku mokkal na ba mu wàññeeku war lu bëri ci xam-xam wàññeeku wàll la xel dafay am ay awhaam ay defe man nga yaakaar ne nii la fekk du noonu nga nekk borom xam-xam mag wax ko fekk yow fa nga jëlee sax fa ngay sukkandiku sax da nga waxu ko far boo ubbiwaatee téere bi da ngay gis ne da ngaa juumoon te tant que ubbiwoo téere bi wala borom xam bu mel ni yow nit wala gëstukat dem ubbi ko ba xam ne waa ji kat li mu wax nii dafa jum nit ñi duñ ko mën a seetlu dañuy la nga askan ci téere boobu noonu te fekk du noonu moo tax mokkal lu am solo la in uriidu illal islaaha mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh